pas-pas nag boo koy dégg nit ñi dañuy defe ne mooy koo xam ne rek day xëbër xëbër bëriwut ci Sénégal bi ku ñu woowee nitu daara nit ñi wekk ko ci buy wax ci beneen wàll wa maanaam waxul ci mbirum alxuraan donc mu toog di la wax ci àdduna di la wax ci lu temporel ëpp la ca xam-xam yow ma mu toog di ko wax kon kooku mënut neex pouvoir en place kon kooku noonu liggéey bi muy def ci wàllu daara di ko def ci wàllu temporel su paree pour dem assemblée nationale nit ku mel noonu état mënut ko bàyyi mu dem pour man c'est une offense à Cheikh Omar Diagne que de citer le nom de Djibril War di ko dendale ak moom parce que Djibril War waaru ca dara daf ca sax waaru kan na ca ginnaaw mu leer ñëpp amul kenn ku koy laam-laamee wala kenn ku mu wutu fii mooy ki nga xamante ne bi Sénégal amee ba léegi ñu ngi soog a jàpp doomu aadama ci diffamation wala ci outrage mais kan la pourquoi ñu ciblé ko lan moo waral ñu jàpp ko ñi nii jamono bii ak fi ñu toll nii ak weeru koor bii lam cay jàngale leer na nañ yow nitu diine weeru koor la mu sasoo ca gox ba mu dëkk ay waaraateem ay séddoom ay jokkalanteem ak doomu aadama yi nga jàpp ko yow wane nga yow da ngay xeex diine dara dara dara loolu leer na xeexkatu diine nga kon ñun ñoo war a wane pas-pas ak fulla ak fayda Cheikh Omar Diagne jàpp nañ ko tey jàppoon nañ ñeneen démb dinañ jéem a jàppaat ñeneen chaque jour dinañ jàppaat keneen il faut que sénégalais yi xam ne que suñu mobiliser wul dès maintenant pare dès maintenant pour fexe jàkkaarloog ak régime Macky Sall il faut que ñu fexe ba assemblée bii di ñëw doon assemblée bi ñëkk ci histoire du Sénégal fu ñu gisee le régime en place mu nekk minoritaire ci biir assemblée nationale c'est le seul souci de Macky parce que li ko fi dese ci vingt quatre mois am yi mu jëm munul nangu vingt mois munul nangu cohabitation am ak assemblée nationale boo xam ne moom minoritaire la fa te loolu mooy objectif bi bum ñu détourné bum ñu demloo ci wax kesew kesew bum ñu perteloo suñu temps Djibril War n'est pas un adversaire Macky Sall mooy suñu adversaire seen pouvoir bi mooy suñu adversaire mooy adversaire Cheikh Omar na ñu dëggal suñu bopp Damboj wax na ko léegi Cheikh Omar Diagne bu korité fële suñu defet la ñun ñëpp nañu préparé wu xool yëkkati level bi dem ci beneen action et sama gars yi balaa semaine bii di jeex suñu amul lu leer lu mu teg suñu loxo ñu marché dem jëli ko c'est loolu la kon nag wax ji du gudd ndax suñu camarades yi nekk ci ginnaaw bëri nañ waaye li may tàggatooy rek mooy képp ku fi jóow booy ñibbi dellool pas-pasu ne nit ki balaa semaine bii di ñëwaat suñu bàyyiwul Cheikh Omar jàppal na yow incha allah di nga dem fekk ko wala nga ànd ak moom yóbbu ko gunge ko këram jaa ngeen jëf. Touba Alaaji Maalik Baay Ñas Limaamu Laay bu Kuuta Njaasaan ak suñu mbokk chrétien yu baax yi ñu bëgg ñu imposer góor jigéen ak franc-maçonnerie euh, dama bëgg nag baat bi leer wax ji message bi leer mooy leen mooy ñu xam ne góor jigéen yi ñoo tëj Cheikh Omar Diagne na leer ci bopp sénégalais yi góor jigéen ñi ñoo tëj Cheikh Omar Diagne ah mbir mi nag mi ngi amee sama plateau li ci dëkk bi yéen ñëpp seenaan ngeen ko Cheikh Omar bi muy wax toujours Jibril Waar dafa ne am na benn mbaam bu sant waar bu taxaw fee di ŋaax est-ce mbaam la déedéet mbaam du mbaam mbaam la wala du mbaam waaw bu dee mbaam la na jël léegi nag wax ji mooy Jibril Waar bi mu duggee ci plateau boobu yéen ñëpp yéen ngi dégg dafa saaga ñi nekkoon ci plateau bi yëpp mu ne yéen ànd sàmm jikko yi yéen Karim ñi toogoon foofu yéen Dame Mbodj ñi toogoon foofu Mame Matar Gueye yéen ñi toogoon ci plateau bi yëpp mu ne est-ce que yéen bi ngeen nekkee xale góor jigéen da leen a tëddee wala ba pare maa ngi interpellé association jigéen ñëpp association jigéen ñi yor ngeen jóg parce que li gën a ñaaw mooy Jibril Waar nee na Cheikh Omar naa la def ni ñuy def di jigéen ana association jigéen ñi kon nag je pense que ne tey jii ñun ñëpp dañoo war a jóg porte plainte ki nga xamante ne mooy Jibril Waar Cheikh Omar nag moo wax leen benn ba kenn jàppeewu ko diffamation lan mooy diffamation lan mooy diffamation dañu bëgg ñu xam ne lii nga gis nii état moo nekk ci ginnaaw dossier Cheikh Omar Diagne état moo nekk ci ginnaaw dossier Cheikh Omar Diagne parce que Cheikh Omar Diagne dafa nekk koo xamante ne yaakaar naa ne bu dee dëggu nit ku dëggu bu dee nit ku sincère bu dee nit ku bëgg askanam kooku mooy Cheikh Omar Diagne yaakaar naa ne nag ñun ñi tey jii ñëpp ay góor lañu. ay gor nag Cheikh Omar Diagne ñoo gën a gore ñun ñi ñëpp dañu war a taxaw tem jug def manifestation fee ñu ko téye parce que Cheikh Omar Diagne warul fanaan ci kaso bi te gis ngeen nag Cheikh Omar Diagne attention li ma xam ci réew mi bëri na Cheikh Omar Diagne li mu xam ci réew mi bëri na kon jàpp naa ne tey jii ñun ñii ñëpp teew fii dañoo war a jug défendre Cheikh Omar jaañ quitte à ce bu fanaanee ci kaso bi ñun tamit ñu fekk ko ci biir kaso bi ndax loolu mooy loolu mooy loolu mooy fi may daanelee mooy leen mooy nañu xam ne aussi état bii nga xam ne la moom la ñu jàkkaar noonu bu jigéen ci Cheikh Omar Diagne làmb mu nooy ci ñun ñi la jëm Cheikh Omar Diagne mii ñu jàpp bu état jugee ci moom ci ñun ñi la jëm kon ñun ñëpp dañu war a dajoo dajale boole suñu doole mais xeex li nga xamante ne moom injustice mais ñaar nit lañ fi tëj ana ana ana ana ñu doon trafiqué bi ana ñu ana ñu doon trafiqué bi ana borom audio yi ah mais ban ñu nekk ah wuyu ma mooy leen rek la bu fekkee mbaam la na jël mais mbaam mu sant waar ay mbaam mu sant mbaam mu sant waar li ñu bëgg nag mooy Sénégal am éveil de conscience te éveil de conscience xam nga ñan la mooy ñun jeunesse bi ñun ñii ñoo war a jóg li xew ci Mali li xew feneen li xew feneen éveil de conscience la c'est nous les jeunes africains ñoo war a jël avenir Afrique suñu loxo comme ni ko Thomas Sankara defee comme ni ko ñeneen defee waaye bu ñu bàyyee tey jii ñu jël noot ñu France dañu imposer seen i valeur ñu signé ay charte yoo xamante ne ay euh, Nations Unies yeneen ak yeneen bëgg ñoo imposer góor jigéen bëgg ñoo imposer franc-maçonnerie loolu mënta nekk Sénégal te loolu du fi am kon nag ñu àndaat wax libéré libéré libéré daa ngeen jëf